waaw sëñ bi maa ngi daloo ziar. yow foo jógee. man maa ngi jóge Tiwaawan man maay gumba bool géwalu Matar ba doomu Tiwaawan ah. tey ma ñëw gunge sama papa na ma ko daan gunge di ànd ak moom partout dans le monde. géwalu Matar ba. waaw sa géer ga de wàcce nañ ko ci ministère bi jox ko jatara bu Thiès. waaw maanaam nguuru yàlla rek ko dul jeex. moom Matar ba ñu ñuy ànd ak moom yëpp yàgg na noo toog ak moom di waxtaan ak moom muy lancer message bu mel nii kon tey buñ ko wàccee. macha allah damay jàpp ni moom président moo ko dénkoon. comme que président moo ko dénkoon xëy xëy huit ans yi huit ans yi mu nekk ci bopp ministère bi yëpp liggéeyal na Sénégal loo xam ni sénégalais yëpp teg nañ ci seen bët. ba tey ji biñ ko wàccee coow li ni mu bëree musuma gis ba ma dee gumbaanta ba tey musuma gis fu nu wàccee am ministre coow li bëree nii. kon nag buñ fa jëlee nawleem teg ko fa mu muy ba jatara ñun dañ koy ñaanal ñun waa Sénégal gépp non non man bi ñu wàccee Matar da ngaa daanu crise man man daf ma fekk ci benn xew mais bin ma ko waxee dama yaakaar dañ may poisson d'avril biñ la nee Matar wàcc na waaw biñ nee ma Matar wàcc na dama yaakaar dañ may poisson d'avril gëwu ma ko woon ah, ndax ndax mi tolloon ci période boobu maanaam président ñëpp xam na ni mooy président tous les Sénégalais mais dafa waroon a xaar ba mataar ba dem coupe du monde ba ñëw ñu door ko faa jëlee teg fa keneen mais ba Diatara nag yàlla dogal na ni yàgg gaxasoo nan ci keppaaru mataar Ba ba maag moom dañuy communiquer dañuy waxtaan ndax am na koo xam ne ci ministère am la bokk muy Doudou ay dara ay xarit lan avant lii di am te dañ ne lal avant da koy fëgg avant tëdd jot te bi mu yéegee ci kaw ci bureau ministre gis naa ministre kott ko kott boo xam ni ñu reetaan xam ni lii mooy Sénégal lii nag day histoire boo xam ni maanaam Sénégal da koy da koy da koy da koy nettali ba ilaa yow mi ndax ministre de la république président donte moo cof ci dooleem jox ko ko waaye bi mu ko ko dénkee dafa am ñu gungewoon woon Ba ba pare mu nite nangoo am ñu ko orienté di toog ak ay mag kon nag ni nu accompagner Matar Ba man damay ñaan yàlla ba Diattara moom tamit mu dem seeti ñi nga xam ne ñoo ŋànk espor ku ci mel ni Matar Ba ak ministère am ak ku nuy wax waa fédération ndax mën mii depuis ba Matar ba nekkee ci ministère ba tey maa ngi ànd ak moom waaye dama seetlu ni képp ku ko soxla day dem sa soxla ba mën mi bi sama a génne àdduna may ànd ak moom di géwal rek dafa ñëw ba Tiwaawan ñëw jaale si ma sama pap loo ko doon taasul. li ma ko daan taasul daal mooy ndigal seex ndigal dooley Baay Faal sox ndigal maa ngi Matar ba nag sama ànd ak moom tey la commencé ñëpp samay xarit lan mais man fu ma tuddee sama tur maa jël sama tur kole ci. ni gumba bool géwalu mataar ba doomu Tiwaawan kon nag waa Sénégal gépp ñi ngi wan ni ñun ay géwal lañu warunoo wax lu ñaaw warunoo def lu ñaaw warunoo nekk ci dëkk bi di yàq sunu dëkk ndax sunu dëkk bu defaroo ñun ñoo ko defar waaye bu yàqoo ñun ñoo ko yàq kon nag maa ngi woo waa Sénégal gépp rawatina waa sport Matar Ba da doon président président moo ko dénkoon xëy na jox ko nawleem nan ñun ñëpp nan nangu loolu xam ni yàlla rek a fi ne. keneen nekk fi nguuru yàlla rek. mais Kumba kee la remplaçant amul benn problème remplaçant fi leen ko fekk. Thiès la jógee de. waaw kii bu doonee sama remplaçant ñun ay géwal ay nawle lan. te macha allah Thiès googu mu dëkk. dama fa bëri ay xarit. wallaahi Ablaye Dieye sama xarit la. wallaahi Ñambe Dieye sama xarit la Cheikh Dieye sama xarit la. Papi Dieye sama xarit la. Diatara yi jigéenu ñoom Ablaye Dieye mooy toggal Yankoba Diatara waaw. léegi yow léegi man maay sa buur. waaw nangu na mais félicitation. yow tamit félicitation. ndax. waaw li nga li nga bay li nga bay ci waar wi. waaw yaatu na. dëgg la te danga maa bàyyil angaar ma fas yéene koo bay. waaw yal na la ci yàlla may ndam. ki nga ko jox nag. waaw moom ak Matar Ba. waaw sotti def ci la. junni lan ak 5000 xam naa ci. ndax ki nga xam ne mooy xale bii di ministre Yankhoba Diattara. Uh-huh. ministre des sports bu bees bii. waaw xale bu yaru la. dëgg la xale bi nga xam ni. ku mën a déggal ay magam xale bi nga xam ni ku bëgg Sénégal xale bi nga xam ni mhm. moo fas yéene indi coupe du monde fii yow maa lay invité nga nekk sama ginnaaw ñu dem rek non maa ngi dama ko yóbbu non Qatar eh, wuy ma eh xoolal dama ni dafa am benn message bu ma lay waxal Qatar bu dee bu dee bu dee laa la wax yàlla rek moo fay yóbbu doomu aadama ci kattanu sunu borom bu nu yàlla mayee wér ak fekke waxuma la ministère waxuma la directeur waxuma la ku mënti doon ñun yàlla dimbali nu am na nu lu ñu yóbbu ba Qatar ñu dem supporter ji douzième waaw nga dem Qatar waaw ñun moom ci ndigal la ñuy wooye Matar ba mooy sama kilifa su bëggee ma dem man dinaa ko tàggu dem incha allahu rabi. mani xoolal man maa lay invité. non déggoo li ma la. tàggul Matar Ba rek. salon d'honneur laa lay jox. tàggul Matar Ba rek. non dama ni baal rek. xoolal Yankoba. Yankoba. ministre Yankhoba Matar Ba déggoo ma ni Ba Yankhoba du ko ba Yankhoba du Matar Ba Yankhoba Matar Ba Yankhoba Matar Ba daa ba Yankhoba ba waaw Ba daa ba mani Matar Ba daa ba jéeri kuli yàqoo ba de. du yàqoo ba yàqoo ba. Matar ba kenn du ko ba. loolu moo gën a neex mani Matar ba kenn du ko ba moo gën a neex. dafa ànd mani Matar ba Yankoba Diattara kenn du ko ba. mani Yankoba Diattara. Matar ba Yankoba Diattara Diattara. ku naqaree Diattara Diattara Diattara. Matar ba ku naqaree Yankoba Diattara. Diattara Diattara Diattara. Yankoba Diattara. Diattara Diattara Diattara. ne leen Yankoba Diattara. eh Yankoba Diattara. Yankoba Diattara. xale bi yaru. xale bu baax. waaye dem na de. day dem. non bu ma jox lee ngay. Ah. man nag maa toog. def ngeen passation yéen ñaar. laay laa bu mat sëkk. ndax ki nga xam ne Yankhoba Diattara la. dafa déggal président Macky Sall. waaw président Idrissa. waaw dañ ne kuñ dul toppee duñ la topp. te borom xam-xam la. yàlla may ko yar. xoolal boo amee xam-xam am yar. yàlla da lay dimbali. kon Matar Ba. ñu ngi koy félicité bu baax. waaye ba Diattara lii nga xam ne jox nañ ko ko tey dina ko àggale dina ko matale te yàlla dina nu may ñu indi coupe du monde ci barke Nabil Moustapha waaye kenn du Yankuba Diattara doomu Thiès waa baa ngi noonu doomu Sénégal a ngi noonu kaay taxaw di ngi jooy di kii kii dafa dafa gaaw a jooy kii mu ngi jooy de ah. kii mu ngi jooy de boo jooyee dañuy jooy. lu muy jooy lan ngay jooy. kan eh, eh, kii. Eh, sama dem Qatar tey la gën a wóor. sama dem sama demu Qatar daa mel ni. fondement ban bu ñu teggi ko béton for forcé. waaw sa dem Qatar. waaw sama ginnaaw. waaw ndax yaa la gën a wóor Matar Ba. waaw dafa liggéey loo xam ne képp ku njabootam. waaw dañ koy boot. yóbbaale ko ndax Matar Ba liñ doon séntu. depuis 1960 ba léegi moo ñu fi muy coupe d' ah. waaye kii di xale bii di Yankoba Diattara ah. la africain mës jël mooy coupe du monde dina dig indi coupe du monde yóbbaale ko moo ta Malika looy doyee rafet na sa jukka ji rafet na ba noppi looy doyee rafet na Yankoba Yankoba Yankoba Yankoba Diattara na leen Diattara Diattara Yankoba Diattara Yankoba Diattara Matar Ba jatara jatara ah bi di xam ne tey fii Sénégal tey fii ñi ngi si ministre des sports waaye tey ñi ngi def passation de service Matar Ba ak ba Jatara may xamal waa Sénégal c'est une longue histoire ndax Matar Ba ak Yankoba Jatara ba ñuy jàng ñoo bokkoon couloir 102D te barkal Quran tey c'est longue histoire moo tax ma ne la sot seeg def la dañuy ñaan Yankoba Diatara Matar Ba li ko yàlla defal 1960 ba 2021 mu indi coupe d'Afrique dañ koy ñaanal Yankoba Diatara yàlla def mu indi moom it coupe du monde si kattalu suñu borom moo tax ma ne ko tawilla naa umra naa sayira naa badanan wa hobda wa rusda wa tawfiq yàllaaw tey kees bég kaay bég na ak jànkeen muy kees kaay jànkeen waaye tey quatorze régions yi bég na cinq cent cinquante bég quatorze mille villages yi bég au Sénégal Matar Ba ah yal na la yàlla jox bon vent waaye Yankhoba Diattara yal na yen bi woyof Matar Ba fi jaar ba indi coupe d'Afrique yal na fa sa secteur jaar Yankhoba Diattara ba indi coupe du monde yal na yàlla dolli jàmm waaw troisième mandat moom ah kooku peuple bay jugé c'est une longue histoire kaddu yow seer na Issa. wala nee na Pastef foo bokk. Pastef. lu lay ni nga ni. je Ba liggéeyam ak jambaaram tey moom. Pastef Pastef naa bokk. ak yaram ak tegginam ak disponible am gis nga sport bu jotee ñun ñëpp dañuy bàyyi wàllum politique teg ko fee ndax li mu liggéey vraiment ñëpp ko jooy ñëpp ko ñaawlu li nga xam ne deux mois élection mama ñu génnee ko Matar Ba jik nañu Matar Ba am na sens Matar Ba fi indi coupe d'Afrique nañ bàyyi coupe d'Afrique rek mais chan beek yëpp Matar Ba vraiment nim ñu jigee mama dafa ëpp. dafa ëpp trop liggéeyam nag ak jàmbaaram moo tax tey ñun ñii ñëw fii ñun waa Pastef pour jàpp ci parce que vraiment lii métti na yankoo Yankoba nag Yankoba nag vraiment mbër lay remplacer si mbër bu mat mbër mbër bi nga xamante ne neexul remplacer de koo xam ne matul remplacer maman mais daal ñu ngi koy ñaanal comme Sénégal ñun ñëpp ñoo moom Sénégal mënul ñàkk mais mama ah maman métti na de. yàlla baax na métti de. yàlla baax na métti na yàlla baax na. kontaan lii musu fee am mu ngi soog am tey. muy président Macky Sall kii di Matar Ba ñoo bokk ak baay ndax Idrissa Seck mburu ak soow moo ko président Macky Sall Matar Ba ñëw dolli góor yaa doo ma laaj daf ni ko boo séddalee ba jaaxle man mii sarak maay kii ñàkk nga sédd Idrissa Seck ma jox yatara mu doxal. waa tey dañ ñu président Macky Sall ak Matar Ba ñoo bokk ak baay ku ñu waxal xam nañu teey nañu dal mel wax waa Fatick may wax waa dañuy sant yàlla parce ñun dañoo am leader foogoon na ñun dong ko bëgg nekkete Sénégal njaay ñëpp ànd bëgg ko ak ñun macha allah mu marqué am dans l'histoire sport sportif du Sénégal demi ñu coupe d'Afrique. francheur noo def tey. fi Ndeye Ndiaye Lamsal. xanaa kontaan rek nee naa fu ñu dox duñ ñun dañuy siggi fekk ñu benn yoon ndax Matar dafa liggéey lu rëy Sénégal tey dañu am ndam partout Sénégal. tey lay yow la jaral lii. Fatick nee na na na dal bu kenn yëngatu moom xam na li mu wax ndax li mu liggéey ci léew leer na nañ ñi lu fàng kenn du ko jeex waaye yaay booy loo jaral ñaq wi tey. ñaq wi li ma ko jaral mooy sama càmmeñ muy Matar Ba bàyyi Nicolas Cheikh Ndeye Issa càmmeñu Ndeye Ndiaye Lam moo ma ko jaral parce càmmeñ la sa xarit sa càmmeñ la parce que nag Ba mag da ko wóolu bokk ak moom ndey baay mu doon rakkam. waaye liggéeyal na ko ba Sénégal yëpp xam ne liggéeyal na ko waaye nag li ci kanam rawuli bët liy ñëw a gën a neex. waa lii ku mu dawul yaramam sa yaram di daaw Madine Diouf Poro damaa bëgg a topp ma ma topp gars laaj leen ndax li dafa rëy ah ñun jeexal nga xale yi di sibile ndax contentement président ne jeexal nga xale yi am ak fête ah ku dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg daw na yaram barke yonent bi. Fatick. waaw Fatick waa gis naa ne tey Fatick kenn desu fa. ñëpp a ñëw lu ko waral. ñëpp a ñëw Sénégal partout ñoo ñëw. Sénégal partout partout seen a sedd mais nag ngi sant rek du dolli gërëm comme sant suñ président Macky Sall moo fi nekk moo ko jox moo fi tegoon moo ko fi jëlewaat dañ koy sant rek santal ko baax a baax a baax. gis naa a ngi dalal xale yi naan dal leen rek leen ndax at na amul solo Matar ak Macky ñoo bokk ndey ak baay. waaw comme ma daal ba mooy suñ mën nañ dalal xale yi ñu a ñëw fii ku fi ñëw yaa fi indi sa bopp koo fi gis ku fi ñëw yaa paasal sa ñëw joxuñ kenn ñëw yaa paasal sa nga ñëw fi sa bopp. loolu maa ngi lay ziar. maa ngi lay doon ziar a ñu sant bu baax a baax. waaw noo gisee mbir mi ak noo ko jàngatee. waaw kontaan kontaan sànq dama dégg ba may romb nga wax lu am solo le ministre Yankhoba Diattara ak doomu ndayam sax laay wax taar Ba ñoo bokk bennoo bokk yaakaar ñoo bokk réew mi avant sax tout donc mais dans l'année incha allah ñu liggéey mu rafet waaw tasaare nañu économie numérique yóbbu numérique bi ci kaw léegi sport bi la. ci Paola waaye. ngir sama xarit bi yow. waaw man la Baye Fall Diattara waaw tey jii moom dama am plaisir ñëw fii ni ñëw ak passation de service bi Yankhoba Diattara ak euh, Makhtar Ba ñoom ñaar ay doomu ndey la. réew bi benn bopp kenn mënu ko xar ñaar président Macky Sall mooy sunu njiit moom lañu yaakaar ginnaaw yàlla yonent bi sotti ci làgg papa maa ngi lay ziar bu baax a baax. waay maa ngi sant yàlla julli loo yëg tey ci bi. xanaa neex rek mbégte rek ak. am jàngat de. waaw jàngat bu baax nga ci mbégte rek ak kontaan ba kees na wax de seet sama xarit ci loo maa ngi nii sant yàlla maa ngi maa la raw. loo indi fii tey. maa ngi kontaan ci yow ci jongama ji. di sant yàlla di julli ci yonent bi. di sant yàlla bu baax a baax a baax. di sant suñuy waajur. jatara laa ñëw. ministre Yankoba Diatara moom laa ñëw soutenir sama doom jooju. waaw maa ngi ñaan yàlla yan na yéen bi oyof yal na ko yàlla jàppale jàppale mboolem jullit Matar Ba mii tamit yal na ko yàlla jàppale. jàppale mbooleem jullit jatara suñu doom la suñu lépp la nañu dem ba ci kanam benn la benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar nañu dal te xam ne yàlla mooy dogal bu yàlla dogalee jàmm day nangu yàlla yàlla defal jàmm e Marème Diouf topp ma yow kaay tam ci day toog rek sooraayu sa Touba jatara boobu waaye lay sañ sa lan li nga sañ sa lan la doon Xolos maay magam man maay Ndey Jatara rakki Matar Ba waa buur waa buur loo wax xanaa am mbégte ak kontaan rek ndax tey jii tubarkalla waaw xaw naa am na xar tuuti waaye c'est pas grave parce que ministre Matar Ba mooy président président mooy ministre tubarkalla xanaa rek di ñaanal le nouveau ministre des sports sunu borom taxaw ko ba mu jëf li nga xamante ni moom la ministre Matar Ba jëf waaye du yomb de wàcc ma daan naa wax bu lëndëm la waaye ku daanu ko li fit kenn du ministre Matar ba jëri kulli ma ni wàcc ma daan naa la wax bu lëndëm la waaye ku daanu kaw rek lay fit ministre Matar ba dépp bi lii amee sénégalais yëpp kenn ku si nekk koo gëstu xolam tooy na koo gëstu nee na ah man kat d'accorduma ak président ci li waaye nag loolu li ko waral mooy liggéey bu bu mu liggéey ci département sport huit ans yi mu fi def prouvé wane preuve la ma ko daan wax rek la meilleur ministre des sports dans l'histoire du Sénégal loolu laa ko daan wax jëri kulli wax mi ci somm waa jàngi loolu laa ko daan wax laa ko daan tar waaye tey laa ko gën a mën a wax. damaa bëgg damaa bëgg nga insister ci loolu. damaa bëgg nga insister. insister la maire. ministre. le meilleur ministre dans l'histoire du Sénégal c'est le ministre Matar Ba jërikul wax mi ci somm doon ay mbabba joxu fa Aïssatou la yaayam tudd Abdoulaye baayam tudd buur jëleen buur bëlsin moom moo wàlli woon gam gi ci xoodaan gën caa yéwén gën caa rafet kaar maam góor lañ jëm ci limpan jëm ale koddu ca kawoon koddu ku ma nee na jigéenam ba nga koy may ndox mu ñibbi siin seen kër maam le roi de Chine e Marine Diouf lu ñu fànk kenn ko jox Aïssata la yaayam tudd tubaar kal waaye Abdoulaye baayam tudd jéeri ko ne Mamba Jaxuba bu jëfee day mat amul juddu amul taar amul daray may te li ma àndal moo ko moom dama ne may duñu sarax te lay wax ba tey la yow ba ba bëree man lam sal ndom ba tànk yi da bu ko de ku ne xam na ah Mamba Jaxuba maamam la roi rib di ñooro dama kaamil baa nga rib daraja jaa nga rib boo demee fële nga xamante ni tubarkalla ah, ah, ah, mooy rib di ñooro nga xam ne kenn du Mbaba Diakhouba maami ministre Matar Ba loolu da koo doon nee naa ko buur nga sëriñ nga. ñëwaat nag ci li nga xamante ni ci mooy buur sin commando feen Aysatu di yaayam mu doo jaxaaw siim le 7 juin jaxaaw le 13 juin jaxaaw siin kooku moo maamam moo seede woon Serigne Touba. mais yaa ngi laal ma yaa ngi laal ma Diouf ba xam nga ba xamal Madou Diouf ak ba xamal Madou bu ragal dara bu ragal yaa ngi ñëw si Abdoulaye ko seede woon. si Abdoulaye Lahad